6 heures et Rebonjour Maria, rebonjour à toutes et tous. Édition que l'on démarre avec Guy Marie Sagna et compagnie qui seront devant le juge, devant des juges aujourd'hui. Poursuivi pour trouble à l'ordre public, l'activiste Guy Marius Sagna et compagnie font face aux doigts des juges ce lundi pour être entendus sur le fond. Leur conseil avait déposé une demande de mise en liberté provisoire. Lutte contre l'immigration clandestine. La police de saint

revendications. Litige foncier à Dougar, les populations dénoncent ce qu'elles appellent des ajustements illégaux euh, de Peacock Investissement et fustigent le comportement douteux des autorités. Les habitants de Dougar qui se sont vus euh, dépouillés de leurs de 72 heures à l'entreprise marocaine pour arrêter les travaux et quitter les lieux. L'actualité internationale complète cette première session d'information. Présenté par vous, Babacar Samb, le développement de ces tout titres, c'est juste après société. Babacar Samb qui vous dit euh, bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio euh, pour vous informer. L'activiste Guy Marius Sagna et Clédor Sène, euh, de même que Hassan Diouf, euh, face au doyen des juges ce lundi, le juge Samba Sall qui va examiner la demande introduite par les avocats pour leur mise en liberté provisoire. Guy Marius Sagna et compagnie, euh, je vous le rappelle, sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité nationale. nom la lutte contre l'immigration clandestine, la police de Saint-Louis poursuit les opérations de surveillance. Retenez que 17 personnes ont été euh, arrêtées euh, vendredi et placées en garde à vue. Les trois convoyeurs et l'entremetteur seront déférés ce lundi. Yves Dendeng. Le phénomène de l'immigration clandestine est loin de connaître son épilogue ici à Saint-Louis où 17 personnes sur le point de braver la mer pour allier l'Europe ont été interpellées de la police de En effet, parmi les candidats figurent des Casacés ainsi que des Bissau-Guinéens, tous âgés entre 20 et 35 ans et qui désiraient ardemment se rendre en Europe en pirogue. Ces candidats ont eu à payer des sommes variant entre 400 000 et 700 000 francs CFA pour pouvoir monter à bord de la pirogue qui devait les convoyer dans ce voyage incertain. Les convoyeurs les ont logés au quartier de Pikine en attendant de rassembler le matériel et tout mettre au point. Mais avec la stratégie mise en place par les éléments de la police de l'arrondissement de Lille, ces candidats ont été interpellés dans la matinée de vendredi dernier ainsi que leurs convoyeurs. Ces derniers au nombre de trois et l'entremetteur qui se trouve être la personne intermédiaire dans cette affaire seront tous les quatre déférés ce lundi. Quant à leurs clients, que considérés comme des victimes, ils seront relâchés après les auditions. Signaler toutefois que deux des convoyeurs sont des frères d'une seule et même famille et habitant le quartier de l'hydrobase dans la langue de Barbarie. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, ce lundi 22 mars est célébrée la mondiale de l'eau. Retenez qu'à l'échelle mondiale, plus de 1,42 milliard de personnes, dont 450 millions d'enfants, vivent dans des zones où la vulnérabilité hydrique est très, est très élevée, euh, selon l'UNICEF. Ici au Sénégal, l'ODD6, qui vise un à l'eau potable, est loin de 53%. Euh, et puis retenez date de fin de calvaire ce 31 des populations annoncée euh, le ministre de l'eau et de l'assainissement euh, n'est pas encore effective avec euh, des lenteurs au niveau euh, du KMS 3 euh, El Hadj Moussa Thiam pour plus de détails. la journée mondiale de l'eau est célébrée partout dans le monde depuis 1994. Elle met l'accent des eaux de D6 eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. La gestion de l'eau est d'un enjeu de taille, même si au-delà de l'ODD 6, elle conditionne d'autres objectifs comme ceux liés à la famine et à la pauvreté, ODD 1 et 2, à la santé, ODD 3, aux villes et communautés durables, au changement climatique et à l'éducation. La sécurité de l'eau s'impose en priorité sur la disponibilité, la préservation, l'accès, la répartition équitable entre les divers usagers et la protection des infrastructures hydrauliques. Au Sénégal, les enjeux à relever restent énormes et sont liés à la préservation et à la gestion efficace des ressources en eau pour éviter les surexploitations et leur contamination par diverses sources de pollution. L'eau est utilisée en grande partie dans l'exploitation minière. La pollution reste de forme atmosphérique et hydrique. Dans la zone de Daroukoudos à Thiès, l'arrêt de l'utilisation de certains puits et la faible rentabilité des culture seraient liées issus des carrières. Toujours au Sénégal, la consommation en eau par jour et par personne passe de 7 litres en 1981 à 28 litres en l'an 2000. Des efforts restent à pour atteindre l'objectif de 35 litres par personne et par jour fixé par l'OMS. Le déficit en eau de consommation est de 54%. Les zones urbaines sont les plus servies. Le triangle Dakar-Kiesbourg polarise 80% de la demande en eau. L'usine KMS3, une fois opérationnelle, va injecter plus de 200 000 mètres cubes dans le réseau, en plus de 50 000 de l'usine de dessalement de l'eau de mer pour combler le gap de 418 000 mètres cubes en besoin en eau dans la région de Dakar. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Seignebay Thiam, lors de sa dernière visite en début décembre sur les chantiers de KMS 3, avait annoncé la fin du calvaire avant ce 31 mars 2021, si toutefois les essais techniques seront concluants. Pendant ce temps, les populations de certaines localités trinquent. L'eau ne coule des robinets que durant la nuit et à faible pression. Les populations contraintes de prendre leur mal en patience. Par contre, d'autres décrivent manquements notés. la radio Sud FM. El Hadji Moussa Thiam, le problème d'accès à l'eau potable est d'ordre structurel, indique en tout cas le géographe et environnementaliste nommé ancien PCA de l'ONAS. Pour lui, l'absence de planification constitue une des causes. Abdou il se nomme, avec El Hadji relativement à la question liée à la qualité des eaux et par conséquent à l'accès des populations par rapport à l'eau potable, il faut noter et le déplorer une situation de déficit qui est d'ordre structurel. D'ordre structurel parce que, un, il n'y a pas une politique de planification en matière de gestion des eaux. Deuxièmement, il n'y a pas une combinaison, une prise en compte de la relation entre l'assainissement et l'accès à l'eau potable. Ce qui a pour conséquence aujourd'hui de noter un très important taux de présence de nitrates, pour citer par exemple les nappes les nappes de sable qui sont à Thiaroye et qui pouvaient jouer aujourd'hui un rôle important dans l'alimentation en eau potable à Dakar. Alors donc cette mise en cohérence, si elle n'est pas réglée, deviendra un cercle vicieux. C'est-à-dire que nous allons être dans une zone dite presqu'île, donc d'eau, et où il manque curieusement de l'eau. C'est donc l'absence de mise en cohérence et la compréhension qu'on doit avoir avec le cycle de l'eau pour voir que dans la relation accès à l'eau, il y a une relation ombilicale avec l'accès à l'assainissement. Aujourd'hui, si la qualité de l'assainissement est bonne, il est certain que la contamination de toutes les nappes souterraines ne va pas pouvoir se faire. Et malheureusement, non seulement d'un point de vue des nappes souterraines, il y a une forte contamination, mais les eaux de surface commencent à connaître le même sort. Et il y a à craindre que dans l'avenir, que nous soyons dans des situations très difficiles qui nous amèneront peut-être à revoir le prix de l'eau, puisque le coût pour le traitement de euh, l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal ont procédé ce samedi à la remise des prises lauréat du concours de poésie sur l'eau et les changements climatiques. C'est un prélude donc à la célébration de la journée mondiale de l'eau euh, qui est prévue ce lundi aujourd'hui euh, sur plus de 300 poèmes réceptionnés euh, par les membres du jury. d'entre eux ont été primés, nous dit Yves Tendeng. Et puis parlons de ce litige foncier à Dougar. Les populations dénoncent ce qu'elles appellent des agissements illégaux des picoques

depuis plus de six mois. On lance un défi aux différents juristes du département qui soutiennent Picap Investissement, aux différents juristes de Picap Investissement, pour qu'ils puissent montrer devant tous les journalistes les papiers qui leur permettent de s'installer sur ce site-là. Et jusqu'à présent, personne n'ose s'aventurer devant la presse pour amener des explications. Maintenant, il y a un rapport qui est sorti par le gouvernement sur le litige foncier et communautaire. Heureusement que le problème qui oppose Pickup Investment et les paysans a été mentionné, mais mal libellé, parce qu'on dit que la population de Dougar n'est pas d'accord sur le projet de Pickup Investment. Le libellé n'est pas bon. Il fallait poser le problème autrement Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le projet Pick-up Investment, on n'est pas d'accord sur le déplacement du projet Pick-up Investment du site initialement prévu vers le actuel. On n'est pas d'accord sur ce fait. Ce n'est pas d'accord sur le projet Pick-up Investment. Et comme solution, il propose à ce qu'on rencontre les autorités de Pick-up et qu'on discute pour qu'au moins personne ne soit lésé. Et puis, réunis à Lompoul sur mer, dans le département de Kébémer, les membres de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, l'UNAPAS, dénoncent avec véhémence le manque de considération dont leur secteur est victime, non sans lister les mille et une difficultés qui plombent la pêche artisanale. Lamine Guessaman a assisté à leur rencontre compte rendu. Insécurité, conséquence des nombreuses pertes en vies humaines en haute mer, concurrence déloyale de la pléthore de bateaux étrangers, raréfaction de la ressource, cherté du matériel, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux UNAPAS a choisi Lompoul sur mer pour lister la crielle de difficultés auxquelles s'affrontait. Moustapha Dien est le secrétaire général de l'UNAPAS. Un pays de pêche comme le Sénégal, qui sur les 718 km, tous ailleurs. La pêche, c'est plus de 2 millions d'emplois directs. C'est une dizaine d'emplois connexes qui sont créés par le pêcheur. Ce que la pêche crée comme emploi, aucun secteur ne le crée. La pêche, c'est la première source de devise pour le Sénégal. La pêche est le secteur qui a été le plus impacté par la pandémie et qui continue d'être impacté quand il s'est agi

2014 à pêcher dans nos eaux. Sous le prétexte qu'ils pêchent le thon et le merlu, on leur permet d'avoir des prises accessoires. 5% de céphalopodes, 15% de crustacés, d'autres espèces démersales. Notre zone économique exclusive ne peut plus supporter ça. Nous appelons l'État à remettre en cause ses licences avec l'Union européenne. Nous appelons effectivement, monsieur le ministre, à une large concertation avec les professionnels de la pêche pour que tous ces problèmes citoyens légaux que leur offre la loi pour se faire entendre. Même une marche n'est pas exclue. Lamine Gueye, Saman Louga Sud FM. Lamine Dieye Sama et puis pour terminer dans l'actualité internationale au Burkina Faso la ressource eau perd de plus en plus sa qualité à cause de certaines actions de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars le département en de l'eau invite tous les acteurs la ressource eau avec modération vous entendrez euh, Mathieu Somda notre correspondant à Ouagadougou dans à vous Babacar Sam on vous retrouve à 7h30 minutes pour la seconde de ce bloc d'info. dinañu jàkkaarloog doyen kay gannaaw ba nga xamee ne asalaamaaleykum bokk yi ay manifester dafa amoon tey tamit ñu daal di leen doon téyendi waaye nag fii nu toll nii mel na ne itam daañu janloo ak juge bi daan ci dikk léegi daal di koy tënk itam. xeex bi ñuy xeex itam ñii tukki di ko nëbbu tey dugg ci géej gi police ba nekk fële ca ndar jàpp nañ lim bu toll ci fukki nit ak juróom-ñaar yooyu. Euh, ci àjjuma ji la ñett ñi nga xam ne ñoo leen doon yóbbu nag ñoom euh, fi mu nii dugg nañ ci ndungu sin daañu ci dëkk léegi ci biir xabaar yi dañ ci toftal itam incha yeneen i xabaar. ay ca bu ñu taaxir loo mu daal di yaatal moom xas Maodo Faye. Maodo Faye. ngeen jëf bokki kon ci ànd ngeen ànd ak noonu ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna Assane ak Clédor seet ñoom Euh, tey jii daañu bokk euh, jotaay euh, janloo ak itam kii nga xam ne moo di juge bi tey ci altine ji su ko defee itam ji Samba Sall moo daal xoolaat mbir yi bu baax a baax seen ay kayit gannaaw ba nga xamee ne jamono yu nu tool sax ñu ngi doon ruumandaat nan seen avocat ne amaana ñu bàyyi leen bàyyi boo xam ne bi bàyyi négandiku la Guy Marius Sagna ak ñooñu nga xam ne ñoom lañu àndoonoon itam ñu ngi leen doon topp daal itam ci na rek dañu salfaane salfaañe penc mi indi ay jafe yoo xam ne yi day tax itam kaaraange gi daal di nekk loo xam ne lii lu mën Euh, sanax lay doon xeexit bi nga xam ne dañ koy xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu ñuy tukki di ko faral di nëbbu tey soobu ci géej gi barza wala barsaq njortoon nañ ne ma ngay jeex waaye fi mu toll ni jolleeku yaat na ndax ca ndar jàpp nañ fa fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne yi euh, dañ doon bëgg a jégg ci géej gi ngir dem ñett ñi nga xam ne ñoo leen doon yóbbu nag ñoom buur dugal na leen ci kaso bi Yves Tendeng mbirum émigration clandestine maanaam tukki ci anam ñu jaaduwul daanaka mu ngi wéy di am fii ci ndar fi nga xam ne ni waa police bu arrondissement bu Ile teg nañu loxo ci lu yàggul ci lu tollu ci fukki doomi aadama ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ni dañoo bëggoon bëkk gaal yi ngir wuti ji biti réew muy ay candidat ñu nga xam ne ni daanaka ràññee nañ ci ay doomu Casamance waaye itam ay doomu réewu Guinée Bissau te ñoom ñëpp seeni at tollu ci diggante ñaari fukk jàpp fanweer ak juróomi at te ñu bëggoon daal jël gaal yi wuti ji biti réew. muy ay candidats ñu nga xamee ni daanaka ku ci nekk jot na fay lu toll ci diggante quatre cent mille jàpp sept cent mille franc CFA ngir mën a yéeg ci gaal bi nga xamee ni moo leen naroon yóbbu biti réew jaaree ko ci géej gi. ñoom ñi leen sax daanaka ñi leen naroon yóbbu fi la ca quartier bu Pikine lañu leen daal di utal néeg fi ñu doon xaar seeni bi su dem waaye ci mujjanteel gi ñi nga xam ne ni ñooy alkaati yu commissariat bu arrondissement bu Ile bi mujjee nañ leen teg loxo ci suba aljuma bi ñu weesu. bokk na ci ñu leen naroon yóbbu moo di ñetti convoyeur ak kenn ku nga xamee ni mooy personne intermédiaire bi maanaam moo doon waxaale ak client yi ñoom ñeenti ñile daanaka waa police daañu leen yóbbu ci kanamu yoon ci altine gi te ñi nga xam ne ni ñooy seeni client waa police fa yéene nañu leen bàyyi saa ñu leen dégloo ba noppi. di fàttali ne ci ñetti convoyeurs yi daanaka ñaar ñi ay mag ak rakk lañu te ñoo ngi dëkk ci quartier bu hydrobase ca Langue de Barbarie ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis. if the

amaguñu ndox li tolloo wala boog mënuñu yegg ci ndox na na mu bis bu ñu jagleel màggal ndox ci àdduna wërngal këpp nag ñoo koy amal depuis atum 1994 léegi te loolee nag waa Nations Unies siiwee ko bis boobee nag daanaka dañ siy waxtaanee rek ci lu jëm ci wàllu nu ñu eggee objectif de développement durable 6 loolee nag di wax rek ci daal askan wi dañoo war a amee ndox mu sell ak assainissement bu mucc ayib fii ak ñu jëm nag ci atub 2030 li jëm ci wàllu gestion ndox mi dafa war a nekk nag lu mucc ayib bu weesee li nga xam ni moo jëm nag ci ODD 6 yi ndax bokk na ci loo xam ni day conditionné yeneen objectif yu jëm si li nga xam ni nu ñu war a taxawoo rek ndox mi balaa xiif ak tamit ndóol di am waaye tamit ci li jëm ci wàllu tamit wér yaram askan bi mu di ODD 3 ba ci sax ville ak communauté durable yi ak tamit li jëm ci wàllu changement climatique yi ba ci wàllu éducation sécurité sécurité jëm ci wàllu ndox nag daa war a am su nekkee nag li jëm ci wàllu jàppandal gi ak tamit ci nuñ ko yaxanalee ak tamit seddoo gu mucc ayib am na ci loole rek mu jëm ci nu ñuy saytoo li jëm ci wàllu infrastructure hydraulique yi Sénégal nag war na taxaw tembe jëm ci xeex rek jëm ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu daal nu ñuy yaxanalee ndox mi tamit ak ci wàllu gestion bu efficace jëmale ko ci ndox mi loolee rek ngir dakkal li jëm ci wàllu nuñ koy jëfandikoo te muccul ayib waaye ci contamination boo xam ne mën naa tukki compliqué ci wànn wu ne ndox bu bëri nag daanaka dañ koy jëfandikoo lu jëm ci wàllu exploitation minière yi pollution bi nag daanaka bu nekkee ci jaww ji noonu tamit lay tukkee ci wàllu ndox mi ci zone bi ñuy wax Daaru Xudoos fu féet ca Cees daanaka lu ñu dakkal yi ñu jëfandikoo yenn ndoxu teen yi sax bu jëm ci wàllu tamit ñàkkum rentabilité ci wàllu mbay mi nag loolee ñoo ngi ko teg rek ci ndodd li jëm ci wàllu daal carrière yi nga xam ni daanaka daal moo contaminé zone bi lee Sénégal bu léegi nag daanaka bu ñu xayma consommation ku ne jóge na si juróom-ñaari litre ca jamono yi 1981 dem ba 28 litre ba ñaar fukk ak juróom-ñetti litre ca atub naam sax bu nekkee daal ay jéego ñoo koy def tamit war nañoo gën a làbbali ngir rek li jëm ci wàllu objectif bi nga xam ni waa OMS fixé nañ ko moo de daal nit ku ne rek jëfandikoo lu si toll ni fanweer ak juróomi litre bis bu ne ci wàllu ndox. suñuy xayma daal daanaka lu des pour ñu matale loolee téeméer boo jël rek juróom fukki ak ñeent la daanaka ci wàllu ndox mi nag réewum taax yi lañ ci gën a sédd triangle Dakar Thiès ak Mbour nag daanaka daal ci ndox bi ñuy jëfandikoo rek booy xool ci ndox bi lépp bi ñuy jëfandikoo rek boo xool téeméer boo jël rek juróom-ñett fukki la usine KMS 3 nag jàpp nañ ni daal bu dooree liggéey bi dina indi ci réseau bi rek lu toll ni ñaari téeméeri junni mètre cube bis bu ne bokk ci ak juróom fukki rax ci dolli ak juróom fukki eh, mètre cube yi nga xam ne nag day tukkee ci usine dessalement eau de mer bi soxla ci ndakaaru ndox mu ñu soxla ci ndakaaru mu toll rek si quatre cent quatre-vingt-quatre mille mètres cubes bis bu ne jëwriñ ji yor wàlla ndox ak assainissement nag gannaaw ba mu mujjee ca cukkub ne meeku gu mujj ba mu amaloon ca KMS 3 mu ngi xam ne ni rek daal coono askan bi dana jeex ci 31 mars 2021 bi ñu ne naam bu nekkee li nga xam ni mooy daal lu ñu yaakaar ci essai technique yi jaar na yoon waaye balaa boobee nag askan wi ñoo ngi jànkoonteeg jafe-jafe bu metti ci li nga xam ne nag moo di ñàkkum ndox ndox yi daanaka guddi lay ñëw te loolee élection bu néew lay ñëwee askan wi nag daanaka daal danañu xaarandi af lëf waaye am ñu yëkkati seen kàddu sax di naqaru daal li ñu jox li ñu jox Aquatec maanaam ndox bi nga xam ne nag moom lañ jëfandikoo ci àll ba El Hadj Moussa Thiam lañ joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM El Hadj Moussa OMS e la ñu wax nga xam ne fanweeri liitar ak juróom yoo xam ne nit ki bis bu nekk war na ko mën a jëfandikoo moo xam la muy jëfandikoo soxla boppam wala mu sangu ci wala mu naan ca OMS e ñoom dañ ne nit ki lu mu gàtt gàtt kon nu bamtuwaat ko fanweeri liitar ak juróom war na ko ko a jëfandikoo ci bis bi Sénégal nag yeggagunu foofu déficit bi maanaam wàññeeku gi nga xam ne wàññeeku na ko wala ni mu war a ñàkk a mate am nañu seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobu géographe bi nga xam ne moo di mu tëddee moo moo tax mu mu a gàll góose ñu ko ci micro El Hadj Moussa Thiam lu tax ndox bi toujours muy manqué ñàkk dox surtout bu mel ni Dakar ak banlieue Dakar tubaab mi ngi koy tudd presqu'île mooy lan mooy dëkk boo xam ne ndox moo ko wër wala dëkk boo xam ne ndox mu la wër ba pare yow nga ñàkk ndox boole ci Dakar dafa nekk ci zone boo xam ne ndox mi soriwul ndox bi nekk ci suuf soriwul mais boo gisee par exemple tey ndox boobu mënal am benn njëriñ pour Dakar dafa fekk lu ñuy wax assainissement mooy sunu toilette yi dañ ko négligé ba nga xam ne yooyu ñëw dem contaminé ndox boo xam ne mënoon na baax pour naan am na lu tubaab di wax nitrate donc loolu dafa nekk comme genre poson boo xam ne moo yàq ndox mi te loolu boo ko buggee génne xaalis bi ñu ciy dugal dafa cher cheraay boo xam ne ragal naa ndox bi tam cher te nit ñi dañu néewle dooleel duñ ko attan beneen élément bi dafa nekk loo xam ne kooku homme politique moo koy gis boo amee ndox boo ko buggee sàmm war nga mën a maîtriser sa assainissement mais bu fekkente ne yow sa assainissement bi dafa ignorer conservation ak préservation eau douce lii lay jox te yemuñu ci ndox boo xam ne moo nekk ci suuf au niveau des Niayes yemuñu ci ndox boo xam ne moo dafa bëri nitrate mooy lu tubaab di wax les nappes de sa les les nappes de sable de Thiaroye mais même boo jëlee géej gi di ndox mi nag ci ci kaw nii ñu ngi nii def ay agriculture yoo xam ne sunu engrais yi saleté bi yëpp foofu lay jëm lu ñu am sànni ko ci biir ndox lu ñu am ñu saleté ko ci biir ndox bu fekkente ne léegi yow da am ndox te xamoo valeur ndox nga bëgg a ndox comme mbalit lii moo lay dab loolu moo indi ba tey Dakar ak yeneen ak dëkk yu bëree ñëpp ñu fexe ba am ndox boo xam ne mooy tubaab ndox bu sel te ñàkk am ndox bu sel boobu ci ay feebar lay indi absence atteinte ODD lay indi. moo tax tey ñun ñëpp war nañu mun a xam ni ndox dafa am maanaa ba nga xam ne dañ ko war a protéger dañ ko war a sàmm ci suñu comportement. que gouvernement bi ci lu ñuy wax gouvernance de l'eau dafa war a améliorer son comportement pour que relation dialectique bi am entre assainissement ak eau potable mu mun ko comprendre bu boobaa mun nañu préserver la ressource. ñoo ko déggalu li aju ci wàllu coowal suuf loo xam ne dafa dox ci benn entreprise bu dem liggéeyukaay bu nekk ca Maroc nekk fii ci biir Sénégal Dougar euh, foofee euh, koo joxe am na ci boo xam ne bii daal wax nañu ne ñu ne ñooñu nga xam ne ñoo di marocains yi ñaari titre benn bi ñu jox ko Pick Cap investissement noonu la tudd ak tam RTS ñu ne nag daal mbir mi boo ko seetloo téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci ay hectare coow li na kuru ñoom ñu doon janloog taskat xabaar yi askan woowule ne nag kooku daf leen a war a abal foofee Diop Ndour mooy directrice euh, CRC yi nga xam ni moom lañ yóbbu woon sax mu foofu la baykat yi ñoom ca Dugar moom kaddu yi la ci jot a rotal ci coowal suuf loolu la ñu euh, ci li ñu baaxoo ci wàllum foncier. bu ñu nee un titre d'état un titre d'état n'est jamais créé sans décret présidentiel. et concernant ces deux titres d'état qui font un total de 159 hectares n'ont jamais eu de décret présidentiel. donc liy wane ne. pick-up tey jii daf fi ñëw doon président boppam. indi décret boppam fal boppam jël suufu jàmbur ak njiit yoo xam ne ni ñoo nekk ci état bi di ko dimbali ak di ko dooleel ba mu implanté wu nangu ay suufu jàmbur nekk président boppam ndax expropriation buñ koy wax décret présidentiel moo koy def nit mënul xëy ñëw exproprié nitam ci suufam te président de la république génnewul décret concernant nag 72 hectares bii bi fi des kos di wàcc di toj musul am décret présidentiel buy wane ni ñii dañ fi war a jóge mosul am décision de justice boo xam ne nii dañ ko wax ne ñii dañ fi war a jóge donc dañ leen jaay doole parce que pick-up yor na xaalis mën na teg xaalis sur la table am na doole étranger la léegi nag li nga xam ne mooy borom tool yi nekk fi di xeex ak pick-up danguwuñu 100 millions képp ki doon laaj am nga lu la leer bugguñu cent millions seeni suuf la ñu bëgg leneen li ci tege mooy fictif ci titre foncier en faux usage de faux en écriture publique ci administration ba ma dalee nekk ci suuf ba léegi maa ngi koy ngi koy doog a dégg te dugaar gi la xewee 159 hectares ngeen ñëw nangu ay suufu jàmbur toj ay këru jàmbur jël ay xale dajale leen ba ñu 49 tëj leen pendant plus d'un mois ci du faux pour lu neex ay privé fii la xewee biir dugaar li ñu bëgg nag te waa dugaar ko concernant Sëbi Kéb Kéb ak keneen ku fi am tool mooy nañ leen delloo seeni ay amul masla amul kap amul reer pick up depuis que bu ñu génnee euh, kii wu litige foncier bu ministère de l'intérieur ba léegi mi ngi profité di tabax demandé nañ ko à ko mu arrêté travaux yi mu bañ on lui donne 72 heures pour arrêter les travaux. na taxaw 84 57 ñi ñu fa jox coopérative CDE mi ngi fa am ay suufa am ko en bonne et due ñu xëy jël ko nangu ko jox ko coopérative RTS loolu mooy kumba mu am nday kumba mu amul nday loolu moo fi dul am RTS daf fiy jóge ndax yoru sax kayitu suukar ndax li mu yor si fitti titre foncier foo munoo fa am kayit bu valable seeni borom a ngi fi toog présent li ñu bëgg mooy seen ay suuf Euh, fële ci Lompoul lañ doon daje mu daje mu di ñi nga xam ne dañoo nekk rek union nationale ci wàllu nappkat yi ak itam euh, lépp loo xam ne itam jëm na rek ci seen wàllu liggéey ak tamit euh, yeneen lu jëm ci seen a seen wàllu xarala daal dañ leen a faalewul mu metti leen lool nag bañ fa doon daje di waxtaan Lamine Gueye Samane. ñàkkum kaaraange waral ñuy ñàkk seen bakkan si géej gi bateau yi nga xam ne ñoo jokkee bitim réew ne gadd si biir réew mi géej gi diggante Sambara cher gi nga xam ne moom la jumtuwaay yi jëfandikoo cher union nationale national des pêcheurs artisanaux taamu woon Lompul sur mer ngir wax bépp jafe-jafe bi nga xam ni moom lu ñuy jànkonteel Moustapha Diop mooy président UNAPAS. gën gi ñuy continuer di gën di sori ci géej gi dara waralu ko lu dul ñàkk jën te ñàkk jën dara tegu nu ko lu dul bato yu bari sur surcharge ci géeju Sénégal géeju Sénégal la état Sénégal yan lu mu attanatul ba tax moolu Sénégal yi di dund ji fi jafe yoo xam ne nii jéggi na dayo parce que fu nu daawul dem ñoo ngi fay suñu insécurité di gën di yokku ndax moteur yi nga xam ne ni tey CFAO ko jaay moteur yooyu ñàkk a moyen pour jënd ka dananu tax a garder sunu moteur yi nga xam ne ni yu màgget lan lu nu gën di sori ku ci panne rek da ngay mujj disparaître mooy sunu jafe yi gën a ñoom ñi bokk si kuréel gi ni nan ñi leen jiite joxuñu leen benn gëdd ba tax na ñuy woo président de la république ak ministre de la pêche ñu jekkalaat seen toogin Macoumba Dieye di vice président bu UNAPAS moo li tey amatuñu yaakaar si géej gi ba taxawoon nag jamono yeeg luy dem di dem immigration clandestine jaay nañu géej gi jaaya jaaye jaay ba géej gi kenn gisatu si benn pépp jën indil nu ay moteur yoo xamante nii wax dëgg yàlla mool yëpp seen poos yi bënn na bàyyi fi CFAO muy lëmbe guddi ak bëccëg ndax société français la pêche artisanale bi kaawala jëm nu lay interpellé président de la République monsieur Macky nga delloo sa xel sa ñetti at yi la dese sa mandat bi nga gëstu pêcheurs li nga romboon si huit ans yi nga mën ko rectifier mais ni ngay dund ak ñun moom jekkul jaaduwul te eskanu mool askan nanu woo xamante nii nu lay jàppale si emploi bu bëree bëri ñoom nag mer ba futu ñu ni ko saafarawul dina yoon may na leen ko daañu ko def ngir ñu dégg leen bañu ñu sax ba génn si mbedd mi def marche nationale ki leen doon jotali xibaar yi fii si Louga lamin Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye ci wàllu sport ci Ligue 1 euh, fi ñu toll nii klaxio bi amoon euh, tamit. Euh, Eh, Gracio ci diggante eh, eh, Casa Sport ak Jaraaf benn kenn ku nekk benn bal nga dugal ba match bi jeex takk ndam demul dikkul itam benn Michel Kanfoudi. ndam demul ndam dikkul ci classico bu football bu Sénégal bi daan dox ci diggante Casa Sport ak Jaraaf bu Dakar ñaar équipe yi nag dañoo tembo ku ci nekk benn bit nga dugal Ziguinchor waaye ñoo njëkk a tijji taax yi bu match bi amee juróom-ñeenti simili Mahfous Kandé moom mi nga xamante moo profité ci benn perte balle défense su Médinois yi nag daal di duma gardien de but bu Jaraaf Pape Seydou Ndiaye la am vert-blanc yu Médina yi nga xamante ni gannaaw bu ñu encaissé seen bii boobu leen dañoo yëkkati seen niveau de jeu daal di profiter ci manque expérience su défense Casa Sport ngir mën a créer penalty penalty boobu leen kii di El Hadj Madické moo ko daal di bu match bi amee fukki simili ak juróom ci score boobu le lañ demee ci mi-temps bu ci ñaareelu période bi nag Casa Sport daal teg loxoom ci bal bi contrôlé match bi waaye jaraafmeen yooyu nga xam ni tàmbali woon nañu yéeg seen coono match contre club sportif sfaxien nag daal di gérer match bi di def ay contre ci contre yooyu sax as tuut poulain wu Cheikh Gueye defoon hold fii ci Ziguinchor ci temps additionnel bi bu nekkuloon vigilance gardien de but bu Casa Sport bi di Pape Moussa Sène mi nga xamante ni wone woon na xar kanam bu jéggi dayoo ki doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. kon nag euh, soxna si loolu moo doon classico bi nga xam ni moo amoon ci diggante Casa Sport euh, soxna Maria ak équipe bi di Jaraaf. foofu la ñuy taxawoon. jërëjëf xaaj Maodo Faye ñu jox la dig daje incha juróom-ñetti waxtu ngir.